yéen ñi di critique ñoom keesi foofu ñoom Mollah wala ñoom Akhenaton wala ñoom Tunkara yéen ñii ñoo leen ëpp fulla ci réew mi ñoo leen ëpp njëriñ ci réew mi te ñoo leen gën a nekk ay patriote bi mu méttee gisuñu kenn ku dul ñoom gisuñu benn membre Pastef gisuñu kenn kuy woote wooye man patriote laa damay défendre le ñoom lañ daan gis bi ñu waxee cotisation ñoom ñoo jëli lien yi de ces ici comme qu'on gagne un peu de reconnaissance. On ne doit pas critiquer une personne parce qu'elle a donné son avis ou parce qu'elle a donné son opinion.